di leen jaar yéen ñu suivre rapport ñu war a ñëw ci benn vidéo li ñu wax mooy est ce que ñun fi ñuy xalaatee ñun Sénégal yi nga xam ne ñu ngi suivre sport est ce que Aliou mi ngi xalaate foofu ak fédération bi ak ñi nga xam ne ñoo ëmb football Sénégal pour man ndax euh, booy bu mel ne Soufiane Diop guddi yi mu leer na pare na pour football Sénégal Sénégal def ñu benn déclaration ak benn motivation bi wane ne pare nañ pour woo booy bi pare nañ pour dara booy bi Aliou Cissé war naa maa guddi wax moom. war na def ay signal yoo xam ne ay yoo xam ne booy bi dana xam ne un jeu dana ko wow te bu ci jógul nag français yi dañ influencé di ci dèjà moom woo booy bi mais laataa ñu gën a xuus ci loolu dañoo yéen ñi gën ci page bi ngeen abonné te ngeen bës bi pour ngeen say vidéo otaaral fii ci sport sama yi toujours ñun Sénégal yi dañuy xaw a jiir suñu bëgg-bëgg na dañuy woo booy pour yàqal leen loolu mën na am waaye amul ndax ku mel na Sofiane Diop am 20 ans 22 ans nekk xale man fubal Franc dañuy xaar kii boo ko woowee même instant yi bu fubal balaa dem ba am 26 ans maanaam club bu mag di toj su boobaa man kaa soxla tey comme cas de Iliman Ndiaye Franc yi ko dootu leen Sénégal la bëggoon mais imagine te ni mu nekk Marseille bu ñëwoon ren mu toj Marseille du def ay 10 bii Marseille kilifa yi Ligue des Champions ñu demaat beneen année daa koy tojaat léegi kon Iliman Ndiaye boobu Franc dañuy commencé rëccu li ko wóonu ndax jeu bu garaaw la moo tax ma ne guddi nag un jour dafa pour woo xale bi. ndax français yi seen envers yi seen ñi commentaire yëpp dañu wax ci talent bi nga xam ne Soufiane Diop am na ko kon loolu nag ñu waruñoo seetaan français yi di jël Soufiane Diop il faut dire la vérité